waaw ma maa ngi leen di nuyu Cheikh Taarif Tektal TV maa leen di nuyu man la Soxna waaw alxames dama fee ñëwoon biig bi ma jullee gee ba pare ñëw fii sama kër yaay sama waajur mu jigéen la mooy sama yaay ma ñëw këram alxames bu nekk nag dama fiy faral def ay ñaan ba ñu julli fajar ba pare ma dellu sama kër alxames bi nag ma def ay ñaan ba ñu julli fajar ba pare ma dellu tey ma julli timis ba pare ñu woo ma dama kat kaw terrasse ba nga yéegoon di fa daanaka dafa fanaan allahu day moo fa génn mu ne leen jarul may ñëw di wax buñ may woo boobu maa ngi julti mu julti ko pare sëlmal jarul ngay ñëw di wax comme sama waajur bu jigéen nag mag la woo na ma ñetti yoon ma ne sama bu jigéen nag jël na ko bu dugal ko sax yónnee ko amet ay dara ma ne ko nag sama waajur bu jigéen ne ma yow bi nga xam ne yaa fi toog alxames bu ne defee defi ñaan su ma sañoon yaay ñëw nga wax saa waajur jigéen nag mag la waaye naaxul moo tax nag mu woo ma ma ñëw ci kër gi boroom kër gi nag ki nga xam ne mooy jur sama waajuru jigéen mooy Mamour Cissé kooku moo benn la woon moog sëñ Fallou mooy Mamour Cissé mu jur mbenn Cissé ma jur moo jur ngëlik xuma moo jóge woon ngëlik xuma kooku nag sanc Touba sëñ Fallou ko joxoon ca keppaaram mu sanc fa kooku benn la woon ak sëñ Fallou Mbacké sëñ Fallou ko ne woon suuf sax boo ko tibbee jox ko nit macha allah dina jóg amoon na ko xam ne woon nañ ko sonn na lool sama maam Mamour Cissé ñu woo ko rek musalam kanam bu mu tissoo li jóg ci kàttanu yàlla man la soxna Astou Fall Cheikh Taalif Tektal TV lii laa doon jox tey allahu bii nga xam ne moo génn fii may ñaanee alxames bu ne muy sama kër waajur wu jigéen man na dëkkuma fi waaye alxames bu ne fi laay ñëw fanaan fi ba ñu nodd fajar ma dellu allahu bii nag fi ma doon ñaanee toog fa di ñaan moom la génn ñu woo ma ma ne man kat saa ndey mënuma ma ne ko jarul may ñëw ñaan leen rek mu wo mu wo wool leen ma ko asfal il faut mu ñëw ndax liggéey bi bari na ci man lool ma dagg sama liggéey yëpp daal di ñëw ci kër gi fii pour di ko di la ko seedeel yow Cheikh Talif Tektal TV ah nga xam ne àdduna moom def lu baax rek a am solo looy def rek defal lu baax te ragalal yàlla te seeti yàlla te dimbali doomu aadama te yàlla rek tax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.